xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman tey la bis bi euh, fii ci euh, jumaa ji sëñ am sa teew na ak mboolem taalibe yi yéen ci biir liggéey bi loolu ñu leeral tuuti rek. waaw biir liggéey bi day sëñ Abdoulahi li sëñ Yuusu wax léegi rek dafa wax ni. yëg-yëg bi mbokki taalibe yi am ci kenn ku nekk ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yi nga xam ne la mu ci jëkk a fas mooy sant sëñ Tuubaa sant goo xam ne amul ab ak laxasawaat nag yeesalaat pas-pas yi jëmi ko ci sëriñ bi day mel ni loolu la ru yëpp yëgandoo moom la sëñ Yuusu di wax ni dama ragal ne sax xanaa waa ahlu badrin dañoo wàcc si tey lam waxoon ne alfun wa alfun wa alfun ba daraw jeefan fii daalikal waqti mi man sha naan aduma gis liggéey bu bii di sax moom dul mën taxaa wax ko ne ko ndigal lii ma la jox boo ko defee ci sa urum ba rafet naa njot ci ne yow rek ak sa mbooloo li ngeen ci li ma ci bëgg lépp danaa ko ci am waaye sëñ bi su wax ne du ma du ma du ma du ma boddi kenn damaa yaatal pas-pasam boobu ak digg Cheikh Mouhamadul Mountakha tax bi sëriñ bi jugee bi sëriñ bi joxee ndigal mu dem sëriñ Amsatu defe fa appel bas gi dafa wax ne suñu atu màggal gi mujj jug dem nduggi ko dafa wax ne nduggam nawet moom màggal lay nduggali sëñ Tuubaa waaye kon ne xam ne ne ñu ak xaside yi waaye ku ne xam ne ne lii yell na ci xaside yi muy pas-pas bu rëy boo xam ne mbokki taalibe bi yëpp moom la ñu wuy see bis bi nag fi ñu tollogoon comité pilotage bi mboolem organisa organisateurs yëpp ak mboolem commission boo xam ne dénkoon nañ la dara ci liggéey bi ñu ngi koy wër di ko saytu waaye li feeñ ci liggéey bi sëñ Abdoulahi dafa mel ni ni sëriñ su waxee keroog ci bokki taalibe bi yëpp yëg ne Hizbut Tarqiyyah dañ leen a sàmmloo nosu nose leen waaye ndigal lu ñëpp ko war a déggandoo kenn ku ci nekk toogoo di xaaru nag toogoo di xaaru ceeb da ngaa jàpp ne ndigal li tey ji yow yaa ko war a ànd ak Hizbut Tarqiyyah defee ko ni ko sëriñ bi bëggee yëg-yëg nag àgg na ci danañu gis ñoo xam ni yàpp ñu woon ne li fi daje tey jii ci ay xewal li fi daje nii bu leneen ñëwatul woon sax mu mën a matale mbooloo mi kon day mel ne li sëriñ bi waxoon ne mun naa aliya yaa muqiitu bil xudur mumtariya atin rasiyatun fil judur taafeex jooju suñ Tuubaa def na ko ca des mu mel ni ku gis nii kuréel gi ubbee Matlabul Fawzayni nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu ko diglee dafa xool ñu ko doy muy Hizbut Tarqiyyah mu jox leen ko ñu di ko def fajar gu nekk di ko def ci njàngin wu sell ku gis ni ñu ko ubbee da nga yëg ni bëgg sëriñ dëgg daanoo la ñu ko am ndax moom day dafa dañoo wax ni sëriñ bi dafa wax ni xasida googu de Matlabul Fawzayni day bi mu koy bind dara teg fa waaye bi mu noppee ni mu ko ñaane suñ borom noonu la ko suñ borom mayee kon lii daa bokk ci ñaanuk sëriñ bi lam waxoon ne daawtuhu wal istajaaba karama wa niltu maarum tuwa maalam aruma lam waxoon ne antal karimu annal xadimu dëhëm udi mu sidika sana yi ku gis bàngaa si ko yii ak jëmm yi nga xam ne am na ci ñooñ gisatuñu la nga xam génnatuñu yenn mbooloo waaye mbooleem yi wër kër bi fu ci nekk nii ñu koy dundalee fii noonu lañ koy dundalee lan jàngum xasida boo demee ci biir jumaa ji fas na dell bal tëj ko waaye boo demee ci mbokk soxna yi ci ginnaaw itam na ko noonu bokk sëriñ bi kër Cheikh Mamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtada foofi dem diggu gin diggandoo ndigalul sëriñ bi tax na ba fu ci nekk boo demee da ngay jàpp ne fa dem sa kon ñu rafet njot ci ne bëggu sëriñ bi amee nañ ko ci ndax jënk na ko jàmbaar yoo xam ne seen dund gépp day xasida ndax soldaar lañ yoo xam ne jatu nañ jekk waxtu bu jot seenum xëy seenum ngont lépp jëbal nañ ko sëñ Tuubaa muy jàmbaar yoo xam ni ku gis fi ñu toll tey jii ñu mal ab siyaare dëgmal jébbale université bi dëgmal màggal gi sëriñ bi doon leen toggaloo barki Dembo Ndiaye ñu wëlbati ko wàll laxasuwaay àndaat ak mbokki bi yëpp liggéey bii kon na nga xam ne sëriñ bi dénk ko ay jàmbaar yoo xam ne seenum xel ak seen pas-pas ci Sëñ Tuubaa ak seen yitte ci Sëñ Tuubaa matale na ko te rafet na waaye xaside yi ñu fi yëkkati mooy xaside yi nga xam ne moom la boromam daan wax ne yaddi taquttu wa lisaani tatalu bi mu nekkee ci xëybatul baxriya wéet lool xariban la dal aada booba day da daan jàng da daan bind bu mu noppee ci mbind mi rasulillah sallallahu alayhi ne ko lii nga bind dama bëgg nga di ma ko jóor moom sëriñ bi mooy jàngkat bu mag ba moo daan takkal boppam diggam di ko jóor sallallahu alayhi wasallam fa mu tëdd kon tey fii nekk ci xorma bii nga xam ne barab bii nga xam ne wax na ne wajalhu ya rabbi ahabba maskani fii ardina laka walil maayi sani ñaan naa sa borom barab bii gannaaw makk ak madina munawara mu gën la ci pàkke soog yi barab nga xam ne ñaan na borom ba waj bu lahel xayra min al jihaati assibti wakfiha anil afati xorom bii nga xam ne wax na ne wajal harimana hariman amina wa kun bihi dhahi kafilan tamina xorom bii nga xam ne waxuma ñu daje fi di jàng waaye bu ñu fi daje woon ba ci yërmande yi xoolante liñ bëgg ci sëriñ bi lépp danoo ko am waaye mbokki tali bii kenn koo ci wuññi wala nga ko yaraat amut ndax kenn ko ci nekk yeesal na sam ba yëg ne li ñuy may tawfeex yi tëbb ci lanwaari muhammad yi daw ci bis bi mooy ànd ak yar te loola kat sëriñ bi jàngaloon nañu ko ndax dafa wax ni sëriñ bay dafa waxoon ni amub yaray tax ñu xëy fam nit tegg ca kaw waaye ñàkk ab yaray tax ñu xëy teggee la kaw di la kon ko njëriñu kenn nii mbooloo yu toll kenn ku ci nekk bi ngay ñëw indaale sa àll indaale say kuréeli xasida sa xeeti daaji cosaan yoo xam ne moom day am na bis mu wax ne naam moos jàngi mii nii ñu koy déggee si wut noonu la ko malayka yi déggee lam waxoon ne danaa la fent fent danaa ko fental moom sama sang bi ay jàngi tagg yu bees tàq noonu la daaji génne waaye boo demee ca mbind ma lam waxoon ne wahab liyal xatta ma at tilaawa wahab liyat tajwida wal xalaawa ni ko suñ borom mayee moom sëriñ bi mbind ak mboolem jàngkat yi boo demee fële tey ña ngay sadd ay xasida yoo xam ne le sëñ Blaat ne moom lañ mas a gis bis mu na nañ ma bindalab kaamil maasal ma ko sottil ma ko ñu defal ko tey suñ tuba borom fayee na ko tey ëpp téeméeri bindkat yu góor ak yu jigéen ña nga fële di bind xasida yoo xam ne lam joroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu jébbal say sëriñ bi kon sëriñ Abdoulahi foofu la ñuy yemande ci bés bi di ñaan ci daraje yi sëñ tuba lim ci digge lépp ñu ànd ko moom barke xaadimu rasul asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci rasulullahi sallallahu taala wa sallam di sant Serigne Touba Xaadima Rasul noo ngi ñaanal Cheikh mun Mountakha suñu boroom gën ko fee yàggal te wéral ko balim namm lépp ci liggéeyal Serigne Touba mu man koo def ca nam gën mate ak nam gën a sell ci barkeb Xaadima Rasul tañ ànd koog moom ginnaaw loolu noo ngi siyaare bu baax mbooleem mbokki taalibe yëpp rek ci bis bu màgg bu sell bii nga xam ne maanaam bisub tawféex la ndax xasida yi fépp fu ñu koy yëkkatee rek bu fekkee ànd naag pas-pas ak pastéef ak yéene ju kawe nañ xam ne ñu ngi ci biir tata joo xam ne maanaam dara mënu koo yàq moo tax njàng mi fu ñu toll rek nay ànd ak set akuk sell akuk sellal bu baax a baax a baax ndax ci sellal googu mooy tax li nekk ci biiram muy ay leer maam ñu mën koo dundee ndax nit ki bu fekkee ne mi ngi mi ngi yëkkati xasida yi boole ko njub gu mat gu mat sëkk day doon koo xam ne lépp lu nekk ci biir rek sunu borom mën na ko caa defal tawféex mooy loolu mu doon wax ci xasida ak wolof googu daan ne la xasida yi day yar xel di leeral xolub murit te day rocc say ñaawteef nga far yor melaw Touba da lay tëbb ay xam-xam nga cey dégg ay xikam te day yéege sag ruux tam ci ruuxuk sëriñ Touba ku koy jàng tey sellal tey sellal la wax ku koy jàng tey sellal melaw mag ña jiitu woon la lay sóob nga doon tànneef wu am cër ci sëñ Touba te day wommati sag ruux ci ruuxuk Muhammadu te loolu lépp yaa ngi koy am ci barkeb sëriñ Touba ci kaw nag ki koy jàng na sellal xolam bu wér damuy jàng ngir yàlla ak yonent beeg Serigne Touba bu koy jàng ngir aw tur bu koy jàng ngir nga siiw bu koy jàng ngir ngistal na ngistal du Serigne Touba bu koy jàng ngir nit ñi di xam bi nga ci féetewoo ba lay tudde sax googee jugal tuub te jëm Touba loolu lim ci jublu mooy dana ci am ñoo ci xam ne daan jàmbaar loolu ci xasida yi amaan sax ñu tànn xasida goo xam ne daan ko def xarit fi ne xasida goo gis mu neex ci sa xol rek yëgal ne xasida googu dëppoo na ak sa biir fi na xasida gooy jàng mu neex ci saxol xol bu dëgër xam ne dëppoo na ak sa biir waaye nag na doon loo xam ne yàlla rek nga koy seedaloo ak yonent bi ak sëriñ Touba waaye bu mu doon loo xam ne da koy fësal nit ñi di ko xam am na ñoo xam dañ koo fësal bu mujj sax seen tur yéen leen baaxoo na tudde tuddee tuñ leen ko waaye da ngay dégg ñu naan sëñ Bisri sëñ Taysiir sëñ Muwaahibu moo tax mu ne bu koy jàng ngir aw tur bu koy jàng ngir nga bu koy jàng ngir gistal na gistal bi sëñ Touba bu koy jàng ngir nit ñii di xam bi biñ ci féetewoo ba lay tudde sax googee jugal tuub te jëm Touba nde doo bisiri doo tey siir te nekkoo di jës bu tam newoo ñoom te ñoom duñ yow nde ñoom ñooy sëriñ Touba xasiida yi meññat la wu jebbee ci biir xolam bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum sëriñ Touba bu dul woon sëriñ Touba ci ak ceddo ngeen di dee du ngeen doon jullit bay doon murid yi safoo Touba ki lee dagg buumum njaam farug réer ci seeni xol defal leen gëm ak tawhid joxoñ leen dëkkub Touba koo koy Serigne Touba moo tax xasida yi buñ koy jàng maanaam waxuma maanaam moo xam répété la moo xam prestation la waxuma sax ñu koy jànge fii ci kaw suuf waxuma kaw suuf waaye asamaan yi sax waruñu ko faa jànge fi ne kii jàng xasida ab ak teewloom dafa war a àgg maanaam mu mel ne ma nga ca xaras ca kanamu Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba mi ngi bind léegi xasida gi jox ko ko léegi mu jàngal ko léegi rasulullahi ak suñu borom subhanahu wa taala maam teewlo gi foofu war a àgg nga xam ne waxuma la nga koy digtal nit waaye malayka yi sax waroo leen koo dégtal da nga leen war a romb dem nga xam ne yàlla ci boppam ak rasulullahi dafa a doon jataay bu wéet boo xam ne yàlla rasulullahi Sëriñ Tuubaa képp yàlla nañ suñu defal tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullah min mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa xasaayidi min mujizatil muntaqa صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن